Bonjour tout le monde. Je m'appelle Khadija Tosso. Je suis euh, élève à Lucide Leclerc. Je vais essayer de parler un peu le Wolof puisque mes deux camarades ont commencé avec le français. Donc, euh, pour... Euh, pour résumer tout tout qui xew foog M. monsieur Guy Marius Sagna le camarade problème de du coup tey euh, ay élèves lañu ci institution Lucie Leclerc ñu ñëw biñ ñëwé ñu fay suñu inscription fay suñu mensualité ñu fay lépp ba ñu laaj ñu ay frais de dossier même même visite médicale sax école bi ñu ko fay loolu loo xam ne école bi moo ko waroon jël en charge même visite médicale ñu ñëpp dañ koo fay loo xam ne du yoon ñu fayloo ñu visite médicale fayloo ñu épreuve facultative fayloo ñu inscription fayloo ñu mensualité fayloo ñu dossier lekk nañ xaalis bu dul jeex si ñun mënuñu wax ñaata la ñu lekk si ñun. du coup euh, biñ demee comme sama camarade bi ni mu ko waxee biñ demee ba ba ci fin de mois de mai nit ñi recevoir seen ay jury ñi di recevoir seen ay euh, numéro et tout ñu recevoir mu ñu suñu surveillant ñëw ba ci classe bi di wax nit ñi seen jury ak seen table pour nit ñi marquer. ñu ñëw ba ci xaarjata ñu ne ñu ñëw ba ci xaarjata ñu ne ko yow définir sa jury ñu ñëw ba ci rugi ñu ne ko définir guñu sa jury ñeneen ak ñeneen neuf lañu. léegi bi ñu demee ba quelques jours après ñu trouvé loolu bizarre ndax dañoo waroon def euh, brevet sportif. ñu ne Dieng naka la ñuy defee brevet xamaguñu suñu ay numéro xamaguñu suñu numéro ta xamaguñu dara mun nañu t'inquiète pas Khadija ça va ça va ça va se régler sachant très bien moom xam na ne depuis janvier kon qu'on va pas passer le bac mu bàyyi ñuy fay di ñëw di fay di ñëw mu ne ma non Khadija vous allez passer le bac c'est juste un problème technique parce que des fois waa UCAD dañuy jël temps pour envoyer message yi ñun on on lui fait confiance suñu surveillant bu ñu nee suñu message dina ñëw on va croire dañuy xaar nekkete daf ñu doon fenn waxuñu dëgg léegi euh, quelques jours après mun nañ mu woo mun daf convoqué suñu parents ñu ne ko Dieng lan nga war a mën a wax suñu parents loo xam ne mënoo ñu ko wax ñun ñuy concerné yi parce que ñun ñoo ñun ñooy def bac et tout mu ne ma non c'est très délicat il faut ngeen woo seen ay parents pour affaire après ki déposé dossier yi mu ngi tudd monsieur Diagne benn prof la ci école bi ñu dem ci monsieur Diagne ñu laaj ñu ne ko lan mooy problème bi mu ne soit office du bac ñaari problème la soit problème de timbre wala problème de hum, extrait de naissance ma ko man personnellement xaajata mosuma am problème papier te aw problème timbre na te joxe naa sama xaalis ba mu mat ñu ne ma yow xaajata amoo benn problème Dieng dafa lekk sa xaalis tout simplement mu wax ko ñeneen ak ñeneen ñeneen donc ce qui veut dire que école dañoo lekk suñu xaalis directeur bi samay camarades waxuñu ci lu bari mais directeur bi il était au courant xam na bu baati xew ci école bi xam na ne école am jubut xam na ne euh, on n'allait pas faire le bac xam li xew ci école bi tout ce qui se trame dans l'école moom xam na ko école bi. Euh, école la boo xam ne man bi ma dalee jàng ba tey mosuma gis école bu mel nii école bi am na drogue école bi am na délinquance école bi am na violence ku ko neex dugg ku ko neex génn des fois am na ñaari élèves yu nekk suñu classe ñoom ñoo gën a drogué ci ci école bi dañuy ñëw duggu drogué ba ne taj naan ba màndi dugg ci classe bi di mieux daal. Euh, léegi benn jour mu yor bouteille spray def ci ay liquide ba ci classe bi prof les bi loolu ne classe bi ak prof témoigner ñu mu bëgg prof parce que jour dafa et tout mu ko bu ci classe ak concentré tellement il est il est il est violent tellement on n'est pas à l'aise il est avec son frère les deux ils sont pareils euh, pour revenir un peu si monsieur Dien à euh, l'école, nous déjà ça c'est clair mais le message que faire passer la génération future di ce qui veut dire que seconde première le troisième etc. Nous euh, protéger en quelque sorte parce que Dien il y année li ñaan juste c'est de relier l'information histoire que génération bii di le même problème que nous. déjà ils nous ont fait perdre une année une année de salaire une année de temps une année de rigueur Nous n'y ko fay du coup nous, les plus bëgg génération bii après nous, ñu menons a qui euh, et tout déjà école bi en plus de ça outre nañ leen par la gentillesse par la violence des fois uteel nañ lu ne pour juste ñu réagir ñu mën a dem ci yoon wala un truc comme ça mais lu ñu leen mënti def école bi ñu réagir parce que xam nañ ne nekkuñ ci yoon def nañ fa ju n'importe quoi dem nañ waxtaan nañ manifester nañ on a tout fait juste pour chercher leen pour ñu mën peut-être bu ñu manifester y fa benn affaire ñu ne d'accord dañuy yóbbu ci yoon mais ils n'ont même pas réagi du coup juste pour euh, bref lii yëpp

Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Adjamati. Adjamati, pardon. Euh, je vais donner la parole à euh, Adjamati. Je vais donner la parole à Après, je vais donner la parole à Adjamati. Adjamati, je Salam alaikum mangi ngi adjamati Touré nek élève ci école bi ñuy woowee institution Lucie Leclerc bi nek Almadi bon damay commencer ca commencement ba parce que fii nii ñëpp problème yi mën naa ne c'est le bac mais am na ay différence ñii dañuy fayal seen bopp ñii maire bi moo leen jëloon promotion

ndax toog nañ mën naa ne deux mois duñ def mat te boo demee cas ci surveillant ba daf naan la waaw waaw waaw waaw waaw mais du mës a réagir léegi terminal ñëw terminal ñëw ñii mu ñu tànn ñii pour mu déposer ñii ñii déposer luñ leen déjà surveillant bi mënul sax manipuler ordinateur nous benn professeur le stage pour nous déposer affaire professeur demna ñi ñi taklé nañ ko ba mu affirmer que ni dafa jël suñuy dossier tégué ko né parce que soit disant que ni du risqué jël ay dossier yom té bu ko dugalé ci clé bi école ba yëpp kenn du def bac kenn xamul lu mu wax nonu ba toog légui

ñu doon ñëwoon fii nii tey pour ñëpp jot si benn parent bu xalaat inscrire doomam si école boobu noonu ñu lay wax ni école boobu noonu nekkul école bi gën ndax boo fa yóbbuwee sa doom pour ñu jàngal ko xam-xam contraire ba la fay jëlee su amul yenn mentalité yii nii pour yóbbu ko si yoon boo xamante ne ni mooy loolu dafa yomb torop ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm si la fait que ngeen déglu